dal leen ak jàmm ci leeral point net tey nag ci xëtam gu njëkk ñu ngi daal di xëy rek garage de Nioro les chauffeurs coincés entre les wax gaynde les Jakarta et l'insalubrité li nga xamante rek mooy fële ca garage yu Nioro ay chauffeur yi fa nekk rek di daan seen doole mer ba futt ci ñi nga xamante ne ñoom la ñuy woowe waa war gaynde maanaam rek dañuy romb rek jël client te fekk sax duñ dugg ci ah, garage ga ak ñi nga xamante ne rek ay Jakarta man lañ ndaxte yi tamit ñoom nee nañ dañuy saltel milieu bi maanaam rek liggéey bi daal jaarul yoon buñ ko tegee ci yoon ñoom ñëpp daal ci bi lañ war a ñëw ndax chauffeur foofu ca garage urbaine bu nekk ñoro euh, booba ñu ngi daal sonn ci loola bëgg nañ daal autorité compétente rek yi nekk ca gox wa wala sax état bi daal mu jàppaleel ci ni ni mel ndaxte i tamit saa su ne duñu gis benn yoon ana lan mooy seen liggéey ci loola te i tamit xam nañ leen waaye dañ leen a bàyyi ci biir te ñoom i tamit manko nañ daal bëgg jug ci loola bu fekkee i tamit autorité yi jógoon ca ñu ngi daal woo wàllu wala sax ñu jugal seen bopp